salaam sama mag Seexuna naa nga def. waaleykum salaam yow sama rak sama xarit Aïcha mbaa yaa ngi ci jàmm. waa man ci jàmm bu baax. tey nag Aïcha histoire bu am solo laa la bëgg a muy histoire bu am Serigne Touba Xaadim Rasoul muy nitu yàlla ko mag kooku. ak kasaa. Serigne Touba nag moom nitu yàlla la te royuwaay la jamono bu nekk war nañ di ko rey ndax ay melokaanam yu rafet liggéeyal na yàlla ci lislaam liggéey bu rëy rëy bay na waaram ci toolub lislaam mat na ñu xamale ko ak doomu aadama yi moom Serigne Touba nekk na koo xam ne euh, melokaanam ak jikkoom ak ay jëfam rëy na loolu ci kanamu jullit yëpp rawatina ci réew mi nga xam ne mooy Sénégal tax nañu war koo xamale ak ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi waaye balaa ñu ciy xuusandi dañuy wax li nga xam ne mooy ay meloom waaye balaa ñoo tàmbali ci meloom dañuy ñëw ci fi mu bokk ak ay maamam ak ñi nga xam ne ñoo ko meññi maam Serigne Touba nag ci arab moom la wax Mohamed ibnu Mohamed ibnu Habibullah Habibullah nag mooy maamam Mam Balla Mam Balla baayam mu ngi tuddoon Mohamadul Xayri ñu koy wax Mam Maharam Mam Maharam moom itam baayam mu ngi tuddoon Habibullah muy Mam Balla ngi tuddee Mam mu mag Mam Balla moom itam baayam mu ngi tuddoon Mohamadul Kabir Mohamadul Kabir baayam mu ngi tuddoon Shahid Shahid baayam mu ngi tuddoon Ousmane seen maam mu ngi tuddoon Alxaaji Cheikh Mbacke moom mu ngi dëkkoon Fuuta Tooro. ñooñu ay tukkulóor lañ woon wax nañ ne boo leen toppee dañuy dem ba ci nit ñu weex ñi ci askan bu ñuy wax moo di nan la jële naa ci sëriñ Basiru Mbàkke xalkom moo wax ne alxaaji Cheikh Mbàkke moomu moo ngi gàddaay jóge ci dëkk maamam boobu di Fuuta ñëw fi nga xam ne mooy Jolof bi mu ñëwee Jolof nag moo ngi sañ ci dëkk bu ñuy wax ngénneen ngénneen googu fa la nekk di fa jàngale ak di fa bay di sàkku dund gu lew di jàngal nit ñi li nga xam ne mooy diina moom alaaji Cheikh Mbacke moom mu fa la nekk jolof mbooloo mu takku dajaloo ci moom di jàng ñii di barkeelu ci moom ñii di sàkku xam-xam nekk na foofu jolof moom maam alhaaji Cheikh Mbacke di rub fukki at yoo xam ne jàngale ak bay rek lay liggéey nekk fa di jaamu yàlla boole kook di bay di dundee noonu mu nekkee foofu buuru jolof boobu ñuy wax bërgël ma fent ñang daal di koy wóolu am ci moom yaakaar yëkkati benn sëram maanaam benn rakkam bu jigéen bu ñuy wax awañang daal di ko koy may mu nekk yang moom awa ñang imam Imam mam maharam Mouhamadil Al alhaaji Cheikh Mbacke nag moom ay mbokkam dañoo tasaaroo woon ñi dañoo nekk Mauritanie ñeneen ñi dem Gambie côté Gambie fa mam maharam nak moom mooy gane àdduna ci atum junne ak téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi mam maharam nak mu gane àdduna papam Mouhamadil khairi di mam Balla moom ak moo ko jàngal alquran ba mu alquran ginnaaw bu papaam génnee àdduna ci la gàddaay jóge fi nga xam ne mooy jolof dem ca dëkk boo xam ne moom la wax kajoor dal ci dëkk bu ñuy wax tàbbilang ngir jàng foofu xam-xam dëkk boobu di tàbbilang ca daara jooju borom xam-xam bu mag moo fa nekk ñu koy wax maam Masamba caam maam Masamba Thiam moomu borom xam-xam bu mag la woon ci jamono boobu maam Maaram nag ñëw na ci moom ngir sàkku li nga xam ne mooy xam-xam ginnaaw bi mu ñëwee ci daara ja nekk fa dafa jàng xamante na momi itamit mu fadonga fa donga di jàng comme moom di sàkku xam-xam sëriñ Moxtaar Ndumbe moomu moo dëkkoon kokki ginnaaw bi itam mu xamante fa ku ñu wax Malamine Sarr mu nekk wëlëreem Malamine Sarr moom itam moo dëkkoon fu ñuy wax caareen noonu maam maaram nekk ca daara jooju di fa jàng di xam-xam boole koog di liggéey liggéey bi mu fiy liggéey nag mooy di ki nga ne mooy sëriñam di bay boole koog di sax ñu wax ne jamono bi mu fay kër ga di def fa loo xam ne kenn def ko fa moom maam maaram ginnaaw bi nag nee bi nga ne am mu jolof ngir ñibbi ba muy jolof sëriñam bobo di maam Masamba Thiam daf koo gërëm bi koy gërëm nag wax na ci moom wax joo xam ne dafa siiwoon ci jamono boobu wax ji nag mooy dafa wax ne barke bi day jógee na fi top ki nga xam ne mooy maam maaram maanaam barke bi ci daara na mamaram mi mii loolu di gàngu gu rafet ci ki nga di ku tedd ki cheikhul xadim ginnaaw bu mu delloo jolof moom maam maaram dal dinay sanc dëkk boo xam ne mu ngi tudd mbàkke saa ñànka ginnaaw bu mu sancee dëkk bi nag dal dinay jël soxna doomu nijaayam bu ñuy wax soxna awa ñang soxna awa ñang moom nag am naa moom ñetti doom ibrahima awa ñang ak asta mbàkke ak soxna mbàkke sëñ ibrahima awa ñang moomu nag mooy maamu waa mbàkke yi ndax moom sëñ ibrahima moomu dafa daan jàngale alxuraan di tok ci garabu dimb ba tax nit ñi di ko askanale dimb googu mu daan tok ki nga xam ne nag mooy soxna mbàkke moom mooy maami xaadima jaxate kala moom soxna mbàkke moomu dafa daan jàng alxuraan di ànd ak borom këram ginnaaw bi mu jëlaat soxna suñuy wax soxna farimata sek soxna farimata sek moomu amna ak moom ñaari ku wax ahmadu farimata ak cerno farimata ginnaaw bi mu jëlaat soxna wax soxna buso soxna buso moomu amna na ak dom ñaari ahmadu soxna buso ak sayar soxna buso Ahmadou soxna Bousso buso momu, maami soxna jaara maam jaara Bousso ki nga xam ne itam mooy sayal soxna Bousso mooy maami sëriñ Mandumbe ginnaaw bi mu amaat soxna bu ñuy wax soxna Mbay soxna Mbay nag moom am nag moom benn doom bu ñuy wax maa Abdou soxna Mbay ginnaaw bi mu jëlaat ku ñuy wax soxna Absa Njaay am nag moom benn doom bu wax soxna Seynabu Mbàkke ginnaaw bi la jëlaat ku ñuy wax soxna Xadi Jóob soxna Xadi Jóob moomu mooy maami sëriñ Balla Joor ak sëriñ ma Abdou Mbàkke Mbàkke bari ginnaaw bi nag la amaat ku ñuy wax soxna Kan soxna Aysa Kan moomu nag mooy woy juru la Balla Mam nag mooy caatu Mam Maharam waaye soxna Aysa Kan moom wax nañ ne amoon na fukki doom waaye yëpp dañoo dellu maanaam dañoo woy ji sunu borom ba mu des Mam Balla mi nga xam ne mooy caatam. li waral njabootug Mam nekk Mbàkke Bawal ci jamono yooyu ki nga xam ne mooy Malamine Sarr mi nekkoon Tàbbilang doon jàng alxuraan ca daara ja te fekkante fa woon ak sëriñ Mam ak ki nga xam ne itam mooy sëriñ Maxtaar Ndumbe mi dëkkoon kokki moom Malamine saar moomu doon fa jàng ca ka nga xam ne mooy Mame Massamba Thiam ginnaaw bi nga xamee ne ñoom ñëpp delluwaat nañ ku nekk nekk sëb dëkk sanc ko Malamine Sarr nag daal di sanc dëkk bu ñuy wax caareen sëriñ Maxtaar Ndumbe sanc kokki ki nga xam ne itam mooy sëriñ Mame Maram daal di sanc dëkk bi nga xam ne mooy Mbàkke Sañanka ca Jolof ki nga xam ne mooy Malamine Sarr nag bi mu nekkee caareen di fa jàngale mbooloo mu takku daal koy wuy si mu amoon barke lool fi muy jàngale nit ñi dañuy ñëw di sàkku ci moom xam-xam ñii ñëw di barkeelu si moom nii ñëw di ko siyaara si mbooloo mi takku loxol loolu nag taxoon na buur bi nga xam ne moo nekkoon làmbaay ñu koy wax Damel Amari Ngoone daal mer loolu bi mu yëgee li nga xam ne Malamine Sarr am na ko ci dëkk bi muy mbooloo mu takku ak barke bu rëy ginnaaw bi Damel Amari Ngoone daal di wax ne Malamine Sarr day li mu am ci dëkk bi man sax awma ko te man maay buur bi kon de ñaar dina am benn mooy ma rey ko wala ma génne ko dëkk bi ci noonu mu yebal benn waaye bu ñuy wax Massamba Fabe ngir mu nekk missionnaire ci Malamine Sarr Massamba Fabe nag dal dinay ñëw ci yi Malamine Sarr dal di jébbalu mel ni ab taalibe ngir nekk ci kër gi ngir wut pexe bu mu mën a reyee Malamine Sarr ci noonu Massamba Fabe ne ci daara ji jébbalu di ànd ak dongo yi te fekk lépp ab espion la bi mu fa nekkee lu tolloo lu tolloo at nag ginnaaw bi la fekk ma Lamine saar ci ginnaaw këram fekk kenn nekkul ci kër gi moom dong mu toog mu daal di koy bett daal di koy rendi bi mu ko rendee nag mu daal di daw dem làmbaay fekk fa buur bi nga xam ne mooy Damel Amari Ngoone mi ko yebaloon xamal ko ne ko rayal naa la ma Lamine Sarr Damel Amari Ngoone nag daal di kontaan loolu ci ki nga xam ne mooy Masamba Fabe ci noonu nag Damel ci waajooju nga xam ne mooy Masamba Fabe ci rey gi nga xam ne rey na ko ginnaaw bi nag ci la ko falee ci dëkk bi nga xam ne mooy Kaba moom mi nga xam ne mooy Masamba Fabe mu daal di nekk njiit ca Kaba ñu koy woowee Fara Kaba Masamba Fabe ci jamono bi nga xamee ne rey nañ ma Lamine Sarr sëriñ yëpp nag daal di mer sëriñ daara yëpp di jóge fu nekk ci àdduna bi di dajaloo fa nga xam ne mooy caareen ngir jaale ki nga xam ne mooy ma Lamine Sarr bi ñu dajaloo ñoom ñëpp ba bari ci kër ga ginnaaw bu ñu jaalee ba noppi ñu daal di waxtaan ci seen biir daal di ne dammel Amari Ngoone de bu ñu ko seetaanee ñun sëriñ daara yëpp danañu rey wala bu ñu rey itam dana dem ba not ñu ba di tere li nga xam ne mooy sunu diina kon nag nañ takkatoo ngir dal ci kawam ngir mu meñu jàmm ci noonu sëriñ daara yëpp daal di déggoo ci loolu daal di takkatoo ngir xeex ak ki nga xam ne mooy dammel Amari Ngoone jamono yi nga xamee ne sëriñ daara yi ñoo ngi waajal ngir xare ak ki nga xam ne mooy dammeel Amari Ngoone ci noonu bind nañ leetar yónnee ko ki nga xam ne mooy maam ngir mu waajal moom ak njabootam ngir ñu bokk ci armée bi waaye maam maaram dafa gàntal ndax def ni leen yéen jihaatu leen bu fekkoon da ngeen di jihaat dinaa ñëw ànd ak yéen waaye li ngeen di def dafa mel ni dafa am lu leen naqare rek ngeen bëgg koo saafara waaye nekkul ne da ngeen di jihaat ngir jëmmi yàlla suñu borom amaana bu ngeen jihaat dinaa ñëw ànd ak yéen mais seeni naqar rek ngeen bëgg a saafara ci noonu mu daal di gàntal ngir xeex ak ki nga xam ne mooy dammeel ci rey gi nga xam ne rey na ko ma Lamine Sarr ci noonu dammeel moom itam daal di waajal armam daal di woo ñi nga xam ne ñooy sàq ak sogeer ak mbul ak waa làmbaay mu nekk armée bu takku nekk mbooloo mu takku ngir ñu janoo ak ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi ci noonu nag ñu daal di dajee daal di xeex xeex bu tàng jër xeex boobu nag daal nay metti lool waaye jamono yooyu ñi nga xam ne ñooy caddo yi dañoo amoon doole lool te bari lool sëriñ daara itam bari nañ waaye dañoo néew doole ndax ku ne xam na ne sëriñ daara mbiram doon mbiru xeex maanaam mbirum diina ak mbirum jàngale képp mooy seen mbir waaye ñi nga xam ne ñooy ceddoy ñoom naka jekk moom xeex dafa mës a nekk seeni mbir loolu nag taxoon na ceddo yi gañe nañ sëriñ daara yi ci xeex boobu daal di dal seen kaw dammel rey lu bari ci sëriñ daara yi li ci des mu jàpp leen jaam li ci des daal di daw bi xew-xew yooyu yëpp jàllee nag ginnaaw bu matee at bi ñu reyee Malamine Sarr maam maaram daal dinay ñëw ngir jaale ki nga xam ne mooy Malamine saar maamaaram bi muy ñëw nag moo ngi ànd ak mbooloo mu takku mbooloo mi nag ñii ay njabootam lañ ñii ay taalibeem lañ ñii ay dongam lañ ñii tamit lenn ci ay doomam lañ bi ñu ñëwee maamaaram ñëw ba tollu ci bërëb bu ñuy wax guy fukki sër bi mu ñëwee pënd bi daal nay bari ba àgg fa nga xam ne mooy caareen waa caareen yëpp daal di yëg ne maamaaram mooy ñëw maamaaram bi mu agsee caareen daal di jaale ki nga xam ne mooy Malamine Sarr ci anam yi mu gën a rafetee ndax la woon te xarit xaritam la woon euh, te mbokk sëriñ daaram la woon mamaaram bi mu jaalee ba noppi nag daal nay yónnee ndaw ci ki nga xam ne mooy dammel Amari Ngoone ngir nuyu ko ginnaaw ba mu nuyoo dammel dammel daal di koy woolu daal di ne na ñëw ndax soxla naa ko mamaaram nag bi mu jógee woote boobu nga xam ne dammel woote na ko moom tamit mu daal di préparé ngir dem wuy ji dammel waaye sëriñ daara yi nekkoon foofu yëpp daal takkatoo ñoom itam daal téye ki nga xam ne mooy maam maaram ne ko doo dem ndax dañuy ragal soo demee damel daal di lay rey comme ni mu reye woon Malamine Sarr waaye maam maaram moom daal dina leen gàntal rek daal di dogu ngir dem fa nga xam ne mooy làmbaay ngir fekk ji dammeel ci noonu sëriñ daara yi daal di koy ñaan ngir mu bañ a dem mu xamal leen ne leen muus ak gaynde yemuñu kon bàyyi leen ma dem ndax dogu naa te damay dem ci noonu nag maam maaram daal di dem ngir wuyu ki nga xam ne mooy dammel